te ñu dellu si waat daanaka yéeni kaay yi nu xëyandool ñoom ñëpp xëy dugg ci géej gi boole kook dinu faram-fàccee la xew ca île des Madeleines muy l'Observateur L'As Les Échos Vox Populi Source A La Tribune Le Quotidien ba ci Direct Info ubbi l'Observateur yéeni kaay bi ne la xew ca île des Madeleines kay jéyee dëgg la ndax nag ñeenti doomu aadama ñoo ca ñàkk seen bakkan fanweer ak juróom daal di cay muccee ca ñoom sax ñaar fukk yaak ñeent ay doomu réewum Sénégal lañu ñeent ya nekk doomu réewum France ñaar ya di doomu réewum Allemagne yeneen ñaar di doomu réewum Suède ak kenn ku bàyyeekoo réewum Guinée Guinée Bissau yéene kaay futur média bi ne ña rëccee ca suuxu googee yépp nag subak tay ji leen delloosi ci diwaanu Dakar Vox Populi ne mbir mu yéeme itam xew na ca suuxu gaal googee juróom-ñeenti tu tànk yu ca nekkoon toll ci ñaari at ñoom dara dalu leen te it dara xusiwu leen naam ne gaal ga dafa këpp l'observateur ne si liggéey bu am solo te mucc ayib la ca sapeur pompier yi ci njiitalul colonel Pape Anse Diatta def waaye ci njàppandalu ko maître nageur yi président de la république Macky Sall itam bi la sole dàllam dem ba àgg ca barab noppee te masawu coono njaboot ga ca lorule ministre de l'intérieur Aly Ngouille Ndiaye ministre de la pêche a Mbengue Ndiaye médiateur de la république Alioune Badara Cissé ba ci ministre des forces armées Sidiki Kaba ñoom ñëpp it demoon nañ fa jéye ja xewe moom Sidiki Kaba sax daanaka yéenekaay yu bëri xamle nan ni mbokkam aqan bokk na ca jéye ju mel journal bi ne lu ci man di am daal diiru fanweeri simili président Macky Sall def moo fa suux ba fanweer réeroon ca ñeent ñàkk ca seen bakkan ñetti doomu aadama yi itam ñoo ñàkk seen bakkan ci l'accident bu metti bi am ni démb ca Petit Mbao ubbi L'As Quotidien yéenekaay bi ne fanweer tamit jële nañ ciy gaañu-gaañu yu metti ba àgg ci lool ñu yegg ñun xooli fu commissaire police bu ginnaaw raay mujjee ubbi La Tribune yéenekaay bi dee média bi ne kii tuumaaloon moo doon agressé commissaire bu police bu ginnaaw raay Sayer Mbeng lay a jaayanteek wàllum yoon source a mel ni ku koy dëggal boole caaka di joxe tegtal yuy firndeel ni Sayer Mbeng dafa wéradi te it àndul a xelam ndax nag ca centre psychiatrique ba nekk ca caaro yi lan ko doon toppatoo te it docteur Ahmed Saloum Diakhaté moo ko doon taxaw li nag tax waa këram jàpp ni seen doom mën naa mucc ci wàllum yoon ki muccagul ci yoon kay moo di Ibrahima Diop l'observateur ne Ibrahima Diop mooy waa ji ñëpp déggoon ni ki démb mu doon xamle ni moo jiite ña doon yàq stade Nelson Mandela ba nekk ca Mbàkke Bawol taxit jamono ji police teg na ko loxo journal bi nekk li mu xamle moo di nañu ko bàyyi lu ko mooy dina dem jébbal boppam police source aané xalifa sëriñ Maam Mor Jaara Mbàkke kay li mu xamle moo di bés bu nu bàyyiwu taalibeem boobee moom ci boppam mooy sol dàllam dem jébbal boppam police dem ba jeex la ñu bëri def ngir xam lu waral cell gi sa Seck nekke l'observateur njiitul parti réew mi daal kenn mënatu koo dégg wala nga koy waxloo ci lu amul solo loolu nag di tekki ni bay sa ba mu sës ci ñag bi ndam la waaye itam sàggan ba liy raam jiitu la ci ñag bi ba màtt fa nit itam coono la lay jural ndax nag fu màtt màtt ba yegg sa tur dina fa yegg te boo moytuwul sa der du fa rafet